yéen a ngi déglu VA FM rajo bu jiitu ci digital fii ci Tëngéej li si yéene kaay ak Mbaye Dione dal leen ak jàmm defaraat leen toogaay yi abal leen ma seeni nopp justice bu Sénégal teg loxo ñaar ñu bokk ci mouvement bi di yanamar muy Simon ak kilifa waaye nag waa mouvement yanamar nee ñu duñu ko bàyyi mu set ubbil yéene kaay bi di Walf Quotidien mouvement bi di yanamar amaloon nañu ab conférence de presse alxames ji ñu weesu ñoom nag ñu ngay xam ne ne kii di Kilifeu ak Simon jàpp googu ñu leen jàpp du dëgg du yoon ay tappale ay parparloo ak njuuj njaaj rek moo ko lal te seen yooyu ñu génn rek la ca am wute na ak la ñu ca wone ñoom ñu ngi xam le ne sax loolu lépp rek li ci nguuruk Sénégal jublu rek mooy fay coowal passeport diplomatique yu député ca assemblée nationale waaye ñoom waa mouvement bi di yanamar ñoom xam le nañ Macky Sall ak nguuram gi dinañ xam ne ñun lañu ko seqal te duñu bàyyi benn yoon muy seetli troisième mandat duñu ko fi masal seetaan te dossier député ca assemblée nationale dinañ ko leeral ci nii mbaa ca naaw 24 heures nañu nguur ak Macky Sall gi daal dafa mel ni ci lii rek la tënku muy waxu xaalis waxu dorog waxu awra waxu suuf mel noonu rek la ñu cay te coow mooy ca assemblée nationale te chaque jour rek day mel ni yàlla da leen di weer ndax kii di Seydina Bougazeli moom ab vidéom génn na démb vidéo ba nag ñu ngi cey gis kii di Bougazeli nekk ci ab oto ci diggante gendarme ak ay faux biyam di naan wéy sama ndey man yàqu naa moom Bougazeli nag nee na dina porter plainte ndax xam na ka ko doon filmer nee na benn gendarme buy wuyoo ci turu Abdou Aziz dëkk ca Pikine moom moo ko filmer te moom rek mooy roon boobale vidéo waa gendarmerie nag nee na ñu seen yoon nekku ca ndax vidéo ba dañ ko boole ak dossier yi rek jébbal ko enquêteurs yi booba lañu ca pare waaye moom Seydina Bougazeli Angelil nee du ci dellu ginnaaw benn yoon day porter plainte kako ko doon filmer te tasaare ab vidéom ci biir réew mi tool passeport diplomatique heure bu ñu yeewoo rek dégg ko muy gën a fës ci biir réew mi ubbil yéenekaay bi di libération buti ko nday yande sekk ba nekk ca Nord Foire moom yoon teg na ca loxo moom nday yande sekk da doon liggéey ak benn couple gambien ak benn waay buy wóo ci turu Lamine Seydi nekk foofee ca Allemagne ñoom daal lañ doon def rek mooy di defar ay faux passeport diplomatique yu Europe ak yu Amérique ñoom nag yoon teg na leen loxo ginnaaw ba ñu jàppee kii di nday Binta Njaay foofee ca aéroport aéroport international Blaise Diagne ubbil critique yéen kaay yi kii di njiitu réew mi président Macky Sall moom tey jii ca ngoon la war a gont foofe ci dëkk bu sell ba di Touba ngir inauguré ji fa benn hôpital waaye askanu Touba nag ñoom dañoo pare woon rek ngir gàttandoo Macky Sall ay morso yu xonq ak yooxu ko fësal seenu naqar ci mbënd mi ak dund